ko bamou leer jëm ci walu yoonu mouride ak lepp luy actualité rawat na lu jëm ci njabootu serigne daaru assane ndjay gaw len gaw ngeen abonné ci daaru ndjay tv moy sen chaîne de référence di len di indil ay xibaar ye gën yi ngeen itteewu daaru ndjay tv di len topal lepp luy information 24 heures sur 24 gaw len gaw abonné bés cloche bi su ko defé ngeen don membre di am lepp sa su ne fi ci daaru ndjay mujirun zahidun sanadun kanzul masakini manaul maramat. Aunun halimun. taqiyun naasihun qasamun ximal araamini dafaawu raziyaati nee na cheikhul xaddim mii mooy musle ci sawara di ko dëddu maanaa boo bëggee mucc sawara dama làqu ci cheikhul xaddim nee na mooy musle ci sawara di ko dëddu àdduna te mat wéeruwaay mooy dimbale way ñàkk yi tey maye lépp lu waay di sàkku ci boroomam lépp lu waay di sàkku ci boroomam rek soo dee Cheikhul Khadim mu jox la nee na ndimbal lu mat sëkk mi ngi nii talawet ku sell te baax fa mbaax yam mooy aayu aaruwaayu way jaaxle yépp tey fekk lor moo leeral diiney borom ji waaye loolu dañ ñëw ca beneen ba mu nekk loolu kon bi mu gisee sëñ bi ci la ko doon jàngale wane kii mu giseel mooy kan te lii ñi ma fi ëpp xam-xam maa ngi koy jégalu bu ñu ko dégloo ba gën koo ci danañ xam ne kii lim doon jàngale fii boroom xam-xam bu wér la waaye nitu yàlla ko fees dell ak boroomam la muy waxaat ak sëñ bi ba tey ci dikk gi dikk ci moom ne ko ma ataytukal yawma dayfan atlubanna rida rabbil baraya alladi yoxlil maqaamaati tey dey dama ñëw di sa gan yow cheikhul xadim te li may sàkku man sëriñ daaru mi wala man Moodu Xasan mii mooy ngërëmal yàlla mi nga xam ne mooy yëkkati maqaamam gaa yu baax yi loolu képp moo fi indi muy maqaamam gaa yu baax yi di nit yàlla yi li ma indi daal lu lenn lu dul sàkku rek ngërëmal yàlla doon sa gan képp moo fi indi mu tekki ne ko xiraaya yaa siqati ridwaanuhu abadan bi xayri suxtin wa tawbiixin wa aafaatin gannaaw nag sa gan laa li ma bëgg nga berndeel ma ko mooy mam ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla te ngërëm li ma bëgg nag mooy ngërëm loo nga xam ne am mer bu ca topp ak yeddeel du ca topp ab gàkk-gàkk itam du ca nekk kon moom bi muy ñëw sëñ bi ngërëmal yàlla kese la fay wut lenn ni àdduna boolewu ko ci ngërëm loolu nag yi mu ci def yépp ku xool njabootu sëñ Daaru te xam leen da nga xam ne ngërëm loolee seen maam jot na ci te ñoom it tëye nañ ko xam nañ متكلك جزاك ربك يا شيخي ويا سندي خيرا ملاذي وعزي كل اوقات مانا يو سما سري يالا نالا يالا فاي او يو ياو ميغا خامني ياي سما ويرو واي ياي سما موتوكاي دي سما تيدغا تي مبولم وقتي لو ام رك يا ماكو ماي ياي سما لب ياو شيخ الخديج مونيكو جزاك ربك يا خاضي حوائج من يغدو اليك بغير سشكايات mu ne yàlla la sunu borom fay aw yiw yow mi nga xam ne yaay fay aajo yi kon loolu lu am solo la waxtu wi rek moo ñu xoj Cheikhul Khadim itam sant na ko gërëm ko bindal ko xasaayit boo nga xam ne wax na ko ca lu baree bari waaye sëriñ Daaru daal ci gàttal ku làq ay ngërëm la yu bare baree bari yow nga xam ne suñ ko doon waxtaanee ba suba du fi xaj sëñ Omar Diop mii ñu tuddee bés bi moom it wax na ne foofee ca tuubaa ju njëkk ja foofee sëñ Daaru nee na bu guddi masaan jot bañ liggéey ci daara ji ba wàcc mi fi armeel li nekk nee na daan jël satalaam kurusam deram dem ba fee ñu ko denc tey fanaanee jaamu yàlla ba asamaan su xëyaatee ànd ak ñoom dem ci tool yi kon loolu kon la nga ci mën a dégge ak li nga ci mën a jànge mooy jaamukatub yàlla bu wér la woon bi muy wàcc ab liggéey nag mu ngi nelaw atum 1924 ca Touba Ndiaye ñëwal ku ñuy wax sëriñ Astu Ndiaye Gàllaay mu waxi ko sëñ Touba Ndiaye ba mu àggee sëriñ bi ne ko ndaw yi sunu borom yi jiitu na la mu daal di yebal sëriñ Omar Diop ñii ñu tudde bis bi wala njabootam mi ñu ko tudde doonoon xaritam boole ko mbooloo ne ko dem leen gungeel ma moo Asan jaam bu boroomam gërëm mi ngi noonu sëñ Touba ne ko ne ko sëriñ Mbàkke bu sa taxawee te ngeen def ko ca penku guy texe defoon na foofee mbaarum ngeer di fa liggéey lu jëm ci barab bi lu jëm ci mbirum barab bi sëriñ Maguèye moo war a fas wa ñuy wax Maymuna jiitu ci defar barab bi ñu yenoo ko foofee fa Touba Ndiaye waxtu yor-yor ak si Touba Mbacke bi ñuy noddu takkusaan waaye nee nañu sëriñ bi moo leen wax ne bu mu laal suuf muy ko laq ngërëmi sëriñ Touba yu bari laq ngërëm yooyu bokk na ci. seede ngërëm yooyu leetar bii ko sëñ Tuubaa bindoon ne ko am lu mu ko doon digal lu mu ko ca doon jox ma nga cey wax naan yow Mor Xasan war ngaa sant yàlla sa borom ndax am nga loo nga xam ne ñu bari ñëwoon nañu àdduna di ko wut mu jafe leen yow sunu borom defal na la ko muy am nga ngërëmal yàlla sa boroom am nga ngërëmal yonti sallallahu alayhi wa sallam am nga ngërëmal alquran am nga ngërëmal lislaam am nga ngërëmal sa ñaari waajur am nga sama ngërëm waaye maa ngi lay seede na ku la liggéey lu toll ne li dee ci we yaramam araam na sawara Cheikhul Khadim moo ko seere loolu yi kon loolu alhamdulilah sëriñ Omar Diop mii nag moom itam bindoon na ko ab leetar moom sëñ Omar am lu mu bëgg ci sëñ Touba ma ngi ko cay wax naan ko dama bëgg nga digal ma loo nga xam ne su ma ko defee dana la neex ci aw yiw waaye Seexul Xadiim daf ne ko na nga fay say bor te digal ko képp ko aji ci yow mu fay ay boroom ba sëñ Tuubaa jeexal leer ma ko ci bi naan ko balliq salaami ilaa jaarika lesi fi'luhu ka ismihi na nanga ma jottali sama nuyoo sa dëkkandoo ja nga xam ne jëfam jëpp daa rafet ba mel ni turam wa muy alxasan sëñ Daaru Xasan waaye sëñ Omar Diop mii kon ñu wàccee foofu kàddu bi moom mook sëñ Daaru seenu ànd dafa yàgg ñu jiitu woon Cheikhul Xadiim wax nañ ne ba mu koy tuddee ab taawam booba sëriñ bi wooteegut yoon wi kon ànd bu rafet mënut a weesu loolu ñoom ñaar nag dañoo diggee woon dendoon ndax kii kër njari sayar la nekkoon kii nekk kër njare sayar ñoo xam ne woon ki ñu sallallahu alayhi wasallam ki ñu addis wax ci baatin te gisaguñ ko bu nawet bi wàccee nañ àndi wëri ko ba murtani ba màkka fare yàlla dogal sëñ daaru njëkk a gis sëñ tuubaa ci jàng ak jàngale ci la ko xibaaree sëñ Omar sëñ Omar moom it daal di ñëw joxe boppam ne ñëpp jébbalu liggéey sëriñ bi moom it liggéey bu wér xane ab kaamil la jébbaloo ba ko sëñ Tuubaa di wàcce it ab kaamil la ko jox ne ko Omar Diop dellul njaambur jàpp fa jaamu fa yàlla te jàpp sa njaambur te bu fa bëgg yett ndax ñett yooyu mayu kon Muhammadu Rasulullaahi mayu ko man mii kon ko may keneen sëñ bi ne ko bu fa bëgg dund te doo faatu bu fa bëgg tàbbi ajana te faatuwoo bu fa bëgg it baax te nga ñu la kon loola ku ne xam na ne lu wér la loo nga xam ne ba jamonoy tey ji nit ñi ku ko ci bëgg it da ngay sa bopp rek keroog nga xam ne sëñ bi nelaw na sëñ Daaru ba sëñ Omar di demit Cheikhul Khadim ci nekk di nekk benn dafa ne ko soo demee néeg ba Modou Assane wàccee ab liggéey yow bu ca duggee yow Omar Diop ndax boo ca duggee kat doo si loolu dégg naa ko ci njabootu sëñ bay nett li ndax li wut Modou Assane bu gisee Omar Diop du ko fa ba li wut Omar Diop bu gisee Modou asan du ko fa ba yéen ñaar benn ngeen du ngeen ñaar ba ci seen kër yi njaar yi wax nañ ne ba su ñu joxee sëñ Tuubaa dane Mor Assane ak Omar Diop ku ci njëkk a ñëw ku ngeen ci jox bu leen jox ka ca des wax ne sëñ Omar njëkk a ñëw ñu jox ko muy kër gee sëñ Abdou Khoudous nekk Touba géej bi ñu natt noonu la demee sëñ Daaru leen jox sëñ Omar dem dëkkee Mbàkke Bawal gee kon daal xam naa ñoo ngi jéggulu ndax liñ ci waroon a wax xaju si waaye lépp nag ñu sante ko commission culturelle u Daaru Njaay rek di sant mbokki Taif yi fi teew yépp noo ngi siyaare mboolem daayira fi teew donte danañ ci ñëw suñu mbokki wilaaye daayira Ahibaayil Xadim bii nu jàkkaar lool ak daayira jamaatu muridiina nii ngeen ko gisee rek Taif moom noonu rek la ñuy ànde fas yéen di gën a góorgóorlu ngeen dolli nuy ñaan ba ànd bi gën a rafet ci kat monsieur Amoussa la doon fii xam naa daal kon fi ñuy wàccee kàddu gi mag ñi daal a li leen mayoon lii nag foofu laay jeexale sëñ Tuubaa dana leen woon li tax ngeen àttan ci man lii ngeen attan ci man bu ngeen déggee sama ndigal du ngeen am sago du ngeen toog mukk te defu leen ko mooy bi ma leen woo ba ngeen ñëw wanuma leen sama bopp yàlla sama borom laa leen wan sëñ Tuubaa ne ne képp ku wan yàlla ña la topp sama borom wan la ña la mu ne waaye ne képp ku nëbbu sa yàlla ña la topp di sa bopp sëñ Tuubaa nee na day doo mën a nëbbu yàlla ba noppi yàlla nëbbu la sa bopp daal ne na ki nga waroon xamal yàlla te xamaloo ko ko bis bu xamee yàlla yow bala ak koo mën a doon mag ñi nag mësuñoo wane seen bopp kon ku bëgg ndekete kon ña la topp gis la rek waneel yàlla mi la boole mi tax Sëñ Tuubaa boole la ak ñoom rek mag ñi la foofu lañ tegoon seen tànk bi ci mujj maam Cheikh Ibra Fall da koo wax tarbiya naa ko fi daa am solo maam Cheikh dane tarbiya ah doom sëñ nu Fall Bamba moo ko net nee na moo ko wax ci gibiñam nee na ko taa gi taxan la raa gi root baa gi guub yaa gi yalwaan xaa gi lu mu liggéey nga nangu ko muy addiye nee na baatu tarbiya googu maam Cheikh moom nag moo ne woon ñun ñi dem sëñ Tuubaa ba mu defar nu ñett yi lañu ñu sëñ bi tegaloon muy lan nee na teenub làmbi yàlla lañ doon bëri bënn teenub yàlla jënd marchandisum yàlla maam Cheikh nag nee na sëñ Tuubaa nee na leen làmbi yàlla soo ko bëggee ub dangay ngay amub yar boo ko bëggee tëgg nee na ab yara koy tëgg ay teggi na koy ub nee na loolu mooy làmbi yàlla nee na teenub yàlla ak taalibe koy bënn waaye ak mbaax a koy root مرسلني السلام ورحمة الله. نعوذ بالله في سر وفي علن من شر إبليس حيث انقضى أوركضاه. نقول بعد الابتداء بالبسملة والحمد والصلاة ثم الحوقلة ربي أعين العبد ليتم القصد. عونك يا معين وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. بكي جلدي بكي تالبي كلفي باخي تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لنا يوني الإسلام بابو يحكي أنكنا وتشوايم بيالله عموم. ديم بكتلول كي تيو كي جتاي بي جتاي بتارو بي تينيان سنو برام سبحانه وتعالى مبارك كي جتاي بي ينتبه صلى الله عليه وسلم دون وخصها بي نفين في دخاتي با رم بدري أجنعي نين فرط لك تنان يلاك بدري أجنعي يومي يلا يوني ci kaw suuf mooy lan mu ne leen mooy jataay bu xam-xam yàlla sunu borom boole jataay bi ca yooyu jataay dañ làq ci ngërëmal sëriñ bi di ziar bu baax kilifa yu tedd yi buñ ci tuddee sëriñ Cheikh Xatar dana yóbbaale ñëpp waaye waa kër sëñ Omar Diop ñi nga xam ne ñoo ak sëñ Darou ni ko sëñ Cheikh Diop waxee léegi sëñ Tuubaa leen boole woon ñuy kenn ci lépp di leen bége lool ci teew gi ñu teew ci jataay bi naka jekk ca sëñ ba nege nii nii rek lañ ànde woon yàlla na yàgg te sax xam naa ngir yi kàddu rek ci li sëñ Cheikh Diop mi doon wax dana xaw a jafe ndax tënk na lu am solo ko dégg xam waxtu waxtu wi tax na daa tënk waaye lim doon wax doy na sëkk ci ñu woote jotaay bu toll nii mbooloo mu toll nii teewe ko muy jëmm jooju nga xam ne moom doon waxtaanee. yim ci wax ci tambale ci ab juddoom juddoom bu rafet ak njàngam diggam ak sëñ tubaa diggam ak lenn ci mag ñi àndoon ñi bokk la nekk ci keppaaru sëñ tubaa lim ci wax doy na sëkk noo ngi koy jaajëfal baax di ñaan sun borom dal gën ko dolli tawféex ndax ku ku safoo njabot gi la njabot suñu dara sant suñu cheikh jom nii ku leen safoo la di leen xañtu ci kër yépp nag amu ci xëj ak seen loolu moom am nattoom la bëgg ko suñ deeru sang njabootam am nattu la ci moom waaye loolu moom la yonent bi sallallahu waxoon waaja rek ba mu ñëwee ne ko kañ la yomal xiyaam yonent bi dana ko loo ko waajale ba di ko laaj mu ne ko di julli bari duy koor yu bari waaye sopp na yàlla ko yonenteem mu ne ko nit ak kamu sopp ñu bokk fu ñu jëm al mar'u ma'a man ahabba kon lool yi eh, tawfiq la yàlla na yàgg te sax xam naa ni mu ko waxee ab tënk rek la ñuy indi ci lim doon wax ndax boo seetloo ni mu waxee da nga xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu mi nga xam ne mooy boroom jamono sun boroom yebal ko ci jamono mu doon ab yeesalkat ni nga xam ne noonu la boroom xam-xam yi waxe ne bépp bopp téeméeri at yu nekk sun borom dana yebal jëmm ju ko yeesalal diinam ji gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa ñëw bokk ci mu mujaddidun yooyu ci sart yi nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ne mooy daje ci nit ñu door a xam ne kii mujaddid la sart yépp mu matal ko waaye yemu ca mu waxal ko boppam lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu algarra wa inni ahmadu kon diinun siwa islaamihi la yuhmadu indal ilaahi wa bihi nujaddidu kon moo ko waxal boppam doy na sëkk yeesal sunu si yonent bi sallallahu wa sallam mooy li ko tax jamono képp ku yàlla yebal jamono nag nga di ko taxawal diinam taxawalal diinam ji dana la booleeg ñu lay jàppale ci liggéey ba boo tàmbalee rek ci ni nu ko alxuraan nettalee tàmbalee rek ci seydina isa alayhi salaam sun borom ay al yun la ko booleeloon ñu di jàppale yonent bi sallallahu alaihi wasallam sun borom boole ko saxaaba yi ñi diko jàppale sun borom xamal ko ne ko ñii ma ay boromi xel yu rafet lañu sel mbir moy bëgg a duggati dee soo ak ñom so damé ba dogu ci mbir nak nga wéyi ta ànd ak yàlla wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala allah kon la nga cay dégge mooy ku yàlla ma sa yabal jamono dana am ñum la booleel ñoo xam ne doo leen mën a ñàkk ñoom it duñ la mën a ñàkk sëñ Tuubaa miit bi mu ñëwee jamono suñu borom da ko tànnal mag ñi li mu doon wax léegi ci jébbalu mbakke Kajoor man dama koy faral di jàngate ne sunu boroom ku xeriñ la ci xeriñam googu mbir mu nekk da koy wutal sabab mag ñi boo déggee palmarèsu sëñ Darou Assane fi mu jaar ci wàllu xam-xam laata muy ak si Mbàkke Kajoor da ngay xam ne lan amoon ca xam-xam ak mag ñu mel ne moom loola mën nañ caa jaamu seen boroom ba jóge fi am ngërëmal yàlla kon la muy tekki rek mooy daje gañ daje Mbàkke Kajoor donte ña nga fa doon mottalente ci wàllu xam-xam waaye day mel ne suñ borom moo leen doon dajale Mbàkke Kajoor ngir faraw yoon wi war a sosoo borom yoon wi sosoo foofu yoon wa ñoo ñi jiitu ci moom di kanay yoon wi muy mag ñooñu loolu man laa ciy dégge bi yàlla dogalee nag kii nuy waxtaane muy sëñ Daaru Xasan radiyallahu anhu eh, di koo xam ne ni ko sëñ Seex waxee léegi bi sëñ bi wootee day mel ne jàngat na woote bi ak kiy woote ku mu ak li muy woote lu mu doon ndax ni mu ko waxee ajjuma ñaar ko ca koor ga mooy la yoon wi tàmbali yor yor boobee la sëñ bi wax a wax joojee am ñu jébbalu ca gaaw ba juróom muy ñett ña jébbaluñ ca ajjuma ja ak ñaar ñi jébbaluwaat ci gaaw mi sëñ daama sëñ madugay jëm mooy moomu sëñ de wax na door a jox boppam sëñ bi kon day mel na dafa jàngat ndax boo delloo gannaaw ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wootee euh, ñetti catégorie ngay mën a wax ne ñoo ko wuy si catégorie bu njëkk bi ñooy bi mu ne yàlla ma yónni rek dañoo gëm loolu daal di ànd ak moom moom gëstuwuñ defuñu leen dañoo gëm loolu rek ànd ak moom ngir xam aw melokaanam laata muy wax loola jikkoom nam doon dunde ak ñoom ca dëggu ga ca kóolu tege bañ tudde ko al laata nubuwa gi loola tax nañu daal di ànd ak moom nangul ko muy benn ñaareel kuréel bi mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo jëfandikoo seeni xel xool bu baax li kiy woote li muy woote lu mu doon ak lii fu mu jëm ndax li muy wax lan la ba seen xel mu rafet wammat leen ñu nangu loola ànd ak moom lo tax yentou sa sax leer mu dan wax de diw de defo won na ne xelam mu rafet dana ko yóbbu mu dugg ci diine ji ko ko far yalla dogal nangul yalla dogalul mu tabbi ci diine ji kon xel mu rafet yàgg wo ma nit tabal ko ci mbir ñettelu kuréel bi moy ñi nga xamne ne leen dugal ci lislaam kon ñett ñoo ñëw wuy yonent bi señ bi day mel bi mu wootee ñooñu rek ñoo ñi ko wuy ci ñu mu waxe rek ñi daal di ñew ñi ci dess mom dañoo jangat loolu te alxuraan dafa tagg borom xel yi li xaw mi yatafakkaruun bu ko alxuraan di wax borom xel lay waxal li xaw mi yadakkaruuna dégg nga ñooñu borom xel yi la suñu borom di waxal te xel kon alxuraan daf ko tàgg yàlla daa gërëm xel mooy da ngay mbir bu ne tëll rek da ngay jëfandikoo sam xel ngir xam fa nga cee teg sa tànk day mel ne kii nuy waxtaan bi suñu def xam noonu la def ci diggante jébbalu jébbalu gu ñu jébbalu sëriñ bi sëriñ bi nag di koo xam ne niko seigne cheikh mi waxe di borom jamono seigne daaru ñu ñu ko ci biir xasida gi wax ne seigne touba mom la yàlla def mu yërmande jum wacce ci kaw suuf ñeel bindeef yépp aduna ak alakhirah هو الذي كان للأنام مرحمة من ربهم في دناهم والخيامات كن xiyaamaati kon loolu lañ ciy dégg ne sëñ Daaru dafa wax ne sëñ Tuubaa dafa donn yonente bi ci yërmale jim mu doon ci xeet wi sallallahu alayhi wa dafa wax ne innama ana rahmatun muhdatun man yërmande laa juñ may xeet wi sëñ Daaru wax ne sëñ Tuubaa moo donn loola ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon képp koo xam ne nga bëgg a mucc bëgg am yërmale yi tey egg sëñ Daaru joxal ne la sëñ Tuubaa ngi nii yërmande yàllaa ngi ni kon kooka xam-xam ak xelam mu rafet moko gindi gindi mat ko gëtam yu neex ak xolam bu baax tax mu gis seigne touba waye tax mu nangul seigne touba ba wan wan ko wa jamono yi wan ko wa jamono ndax lolu ab wote la ab wote la xamle ni borom njariñ ñi ngi ni kay leen jey lim wax de ko karimun taqiyun nasihun wariun nafun nafuun mafatihul wa mi ngi yusuf waame bu sóob woo xam ne baat bi mu jëfandikoo damay faral di wax ne ñi dégg loo ko xam nañ ne baat boobu mooy njariñal kese ngi ni lu ënt ak lor matar buñ koy wax ab taw la waaye mën naa lor mën naa daaneel ay néeg mën naa indi am mbënn waaye xays nag mooy waame woo xam ne bu sóobee day jariñ waaye du lor suñ tubaa suñ deru sama wax ne suñ tubaa waame la woo xam ne sóob na te day jariñ waaye du lor xaysul karim boy wër ku tedd sëñ tuba ngi ragal yàlla ba ragal yàlla jeex boo fi rombee sëñ tuba doo gis ku ni mel taqiyun ku laa biir dëgg jàppal sëñ tubaa ku sàmm jàppal sëñ tuba waaye nag kaay leen njariñ loo njariñ ngi ni loo xam ne doon njariñ waaye day jariñ nafoon nafoon ku bëgg am lu lu am loo xam ne laa ubbi ci sa borom nga bëgg a xam bunta wala ceeb yi koy ubbi nee na mooy sëñ Tuubaa mafaatihul xuyubaati mafaatihul xuyubaati nee na bunt xëy bi suñ boroom yépp mi ngi ci loxol sëñ Tuubaa mooy sëñ Tuubaa kon kooko wan na waa jamono moom suñ Daaru Asan ne leen ku bëgg a jariñ yi njariñ a ngi nii ku bëgg am teraanga ëll tey ak ëllëg sëñ ngi nii bu la rawee doo ko am kon gëstu ko ba xam ki mu doon suñ borom man ko ko ci lamp xam-xam waaye jagleel suñu borom ba mu xam kii ku mu doon moo tax ni mu ko jàppee mu jàppee ko ni ni mu jàppee sëñ Tuubaa mu jàppee ko noonu nga gis ne sëriñ bi bi mu wootee ni mu doon yare mag ñi yar leen ci maanaam yoonu di leen maanaam noppi ko sumt mooy noppi ci lépp lu amul njariñ waaye di di leen xiifloo xiif bu diggu doomu waaye naka noonu di foog guddi di wéet wéet ak seen borom subhanahu wa taala waaye ci al amalu saalix ak al adabul mardi yar bu nu gërëm ay teggin ci lañ leen yéege ba seeni bakkan sell ba bépp gàkk wala bépp sikk sori leen mu ñu set wecc ci lépp loo xam ne day nëxal bakkan di nëxal am xel waaye di nëxal ak ruux di tilimal ak ruux loolu daa jëfandikoo ci ñoom li sun borom wax ci yonent bi bi mu ñëwee ni mu def ak jullit ñi huwa alladi baata fi lumiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal xikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin loolu mooy tazkiyatu nufus boobu nga xam ne Sëñ Tuubaa doon na ko jëflante ak ñoom loolu da ngay gis ne yooyu ma tudd yépp ni ci sëñ Daaru duyee ci Sëñ Tuubaa ba jëfandikoo ko buñ na laa koo xam ne lu mu daan noppi la ku ku bari woon ak noppi la dangay xam ne noppi ci loolu mu yonent bi salaam dafa waxoon ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm na bis dana ñëw deel wax lu baax mbaa boo mënta wax lu baax nga noppi wala boog ngay wax lu baax tey noppi ci ab safaan boo demee ci minul baax xadim sëñ Basiiru day wax ne sëñ Daaru Xasan ku saxawoon di jàng alxuraan la wax lu baax jàng alxuraan fi la yem maanaam jàng alxuraan ci wax lu baax la ci wax lu baax la yem nee na sëñ daaru dafa saxoon ci di jàng alxuraan saa su nekk saa saa saa su nekk laa yafturu anil quraan wéet googu muy wéet itam di wéet ak boromam mooy li sëñ Basiir junj rek daa imal intizaal foog fekk mi ngi beddiku di beru ngir mën a li ñu tuddee zikru wal fikru mooy di tudd yàlla di xalam yàlla tolool loolu dañ ci ñëw ci xawaay boobu bu dee àll al jiu tawil mooy xiif bu digg doomu sëñ Tuubaa jàngale woon na ko day mel na boo demee ca xuqa sëñ bi dafa jàngale ci masaalik gaa ñu baax ñi yoon wi ñu jaaroon waaye day mel ci xuqa la leen ko pratiquer pratiquer loo wax ni nii maanaam résultat bi boo jaaree ci li la masaalik di jàngal ci yoonu tasawuf dund loola nga dem ci xoqam mu ne la ku dundulee bu boobaa nii ngay mel nii ngay mel moo tax sëñ bi di wax ci ci xoqal bu kaw wax ne arkanu bayti jamii alxawmi arbaatun biha yuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa udlatun an suyuqin bil ishaaraati loolu boo jàngatee dund sëñ doo san ñeenti rukkunu yooyu ponk yooyu nga xane ñi am wilay seen borom yëpp seenu néeg wala mbaar mañ am wala kene mooy ñooy ñeenti kene yu ko téye sumtun mooy noppi ci lépp lu dul noonu wa juuxun tawil sëñ de Xasan wax nañ ne bis yi araama woor ci at mi képp la dawul woor kon bis yëpp dafa ko daan woor ku ñeme woonu xiif la baadahu saharun fok guddi ñàkk nelaw ñàkk nelaw moom kenn ku ne xam na ne fanaanee naafila kaamilu alquran téeméeri rakkan di zikkar ay nangami junni ci salatu ala nabi koko amuy nalaw lolou la seen dara doon dundé sahar wa uzlatun an shuyuq may uzla boobu seen Basiru di di wax ci daa imal intidal ku bari won ku saxon ci limi beddi kula ngir di khalat borom subhanahu wa taala lolou kon bi ko seen bi jangale da ko pratiquer yewu ci théorie bi rek waaye daf ko pratiquer dund ko ba saf bam saf sap ci mom nga xam ci walu walu zikru moy tudd yàlla day dafa am martaba bu kawe ci ëllëg tasawuf seigne touba day wax ci masal na ma dawaamu zikri fa huwa akbar min kulli ma kana al murid yukthiru qad qultu dalika qad qultu dalika bila israri qad qultu dalika bila bila israari wala ubaali bi dawil inkaari nee na wax naa ne saxoo tudd yàlla tudd yàlla lépp lu am murid di jàpp neena na tuddi yàlla moy lu ci gëna kawe moy moo ci gëna mag dan na man loolu ma wax sama sama baat ci kaw duma ma ko yàlloo xat zalika bi laa israari waaye wala ubali bi dawil inkari kuma weddi duma la faale ndax amna naa tontu wa kullu man sa'alani fali jawab qabla wala tujadilu ahli alkitab kep kuma laaj nema li nga wax yow seigne Tuubaa foko tek amna tontu nga ne ko li sa tontu mo ne la booy jàng alxuraan bala ngay at si wala tujaad alal ko da nga fa fekk sama da nga romb sama tontu ma nga junjee aaya ñeent fukk ak juróom ca suuratul ankabut wala zikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnauna wala tujaadilu ahlal kitaab kon dawaamu sëñ bi wax ne mooy li ëpp doole li gën a màgg ci lu am murit di saxoo di ko def ndax nee na nan la nit di bañe wala di foog di wan gannaaw tudd yàlla tudd yàlla di tudd keneen nee na loola ak ndof la jëfi ku ku desem xel la ku gàttum xel na wa qultu man taraka dikra li dikri gayrihi fa xumrun laahi dégg nga wa annahu bidaayatul bidaayatul wilaaya wa tarkuhu nihayatul xawaaya nee tudd yàlla mooy tàmbali njëlbeenug wilaaya njëlbeenug wilaaya mooy tudd yàlla nee na bàyyi ko nag mooy njobbaxtanul mbewte fa la mbewte yem bàyyi tudd yàlla fa la mbewte yem kon bi suñ beeru jàngee li ci suñ tubaa da koo pratiquer waxtu wu nekk mu sax ci di tudd borom saa su nekk di jàng alxuraan di zikkar ay tur yu baree bare yoo xam ne suñ tubaa ko joxoon digal bu ne ci wàllu wéet googu mu doon wéet di xalam boromam fikru tamay di xalaat yàlla da ngay gis ne sëñ bi day wax ne ama tafakkuru fa aydan qad ata min anfasi l ashyaai xaytu usbita nee na di xalam yàlla di xalaat yàlla moom it ci mbir yi gën a gànjaru ci la bokk ci mbir yi gën a gànjaru ci ahlu tasawu ci la bokk wa qaala fi l ixyaai xud tagyini inna nihayata thimaar diini fi hadihi dunia xusulu lmaarifa wal untu bil ilahi ذكرا فاعرفه نين الامام غزالي دا وقتي الاحياء علوم الدين نه ا آه، نجب وقتانو مكتم ديني ميغنتم دين نجب وقتان لا ميغنتلو دين ثمار الدين دين الاسلام ميغنت ما نجب وقتان لا نينا موي دي خلام سون بروم دي ويتليكو يالا الانس موي ويتليكو يالا وقت ونك dara du dox sa digganteeg sa borom te loolu mooy li sëñ Darou doon dund nga xam ne amul dara dara luy dox digganteeg boroomam nga gis ne ba ci ñim àndaloon di ay talibem ci loolu la leen di yar wax mag ñi wax nañ ne am na bis ñu ne ci tool yi di bay waxtu tisbaar la julli jot mu soññee julli am ca mag ña koo xam ne xëy nag bëgg ngóora wala mu doon jàmbaar tax rek mu wéy ca waar wa di bay rek di kañu sëñ deeru julli ba sëlmal ne noonu naa daa am ku doon yëngu ñu ne ko waaw diw mu ne ko fi ñu tàmbalee di julli ba fi ñu sëlmalee tàmbalee fa xapp lépp génneel ma ko tool bi nañ ko gas ba ba mu xóot ñu suul ko mu génn tool loolu day wane ne moom dara ndigal la yàlla su xasee teew leneen ndigal waratuta taxaw loolu jël noonu yar kon loolu mooy waxtu wu nekk mi ngi wéet di di bàyyi xel borom subhanahu wa taala te loola bàyyi xel gi muy bàyyi xel borom àgg na ci ci kellteem nga xam ne jamono bi nga xam ne sanc na daaru salaam muy daaru njaay njàmbur bi mu fay gasloo ab teen te ñi ko doon gas am ci ñoo xam dañ doon jëfandikoo wàllu cigarette di tux mooy ñi doon gas teen bi loola képp da koo sib moom nga xam ne teen ba nekk na ba jóge moom naanu ca sayaan nga ca wet ga ci boori kàdd ga ca la ca lañ ko wutal ndox ca lay naan ca lay jàpp ca lay def lépp loolu ci la kell teg mën mën a yem kell te loolu da da danga xam ne lé borom xam-xam yi di wax ne ab daruraat tubihul mahzuraat loola mënoon na ko jëfandikoo waaye fa la ko bàyyi nit yàlla yi ndax dañuy wax ne xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabiina mm. gaa ñu baax ñi ñu baax ñi ñu bañ tudd na al seen jëf yu baax lu mu baax baax ñaawteef la ci ñi leen gën a ragal yàlla ñi leen gën a jege yàlla foofu la àggoon moo tax nanguroon a naan ca teen boobee waaye ca sayaan nga lay lay naan ca lay jàpp lépp lu muy def ca lay koy def loolu fa la sell te a yem loolu bàyyi xel gu mu bàyyi xel boromam mooy li ko war mooy uns bi wéttali ko borom subhanahu wa euh, sëriñ bi di wax ne maarifa bala koo nit a am faw mu am al unsu bil ilah maanaam di wétli ko borom subhanahu wa taala loolu ko may maarifa ànd ak di tudd yàlla saa su nekk loolu la sëñ daru doon dund moo tax mu ne wal unsu min ba'di min ba'di dawaami dhikri bala nit ki am unsu di wétli ko borom day sax lu yàgg ci tudd borom subhanahu wa taala waaye ama taarufu fa ba'da dhikri taaruf mooy xam yàlla moom gannaaw bi ngay xalam di xalam sa borom subhanahu wa ci nga koy amee te di xalaat yàlla sëñ bi day wax ne senn saa su nit ki toog di ko xalaat boromam borom xam-xam yi wax ne moo ëpp jaamu yàlla jaamu yàlla at mënu nangu at muy nangu waaye fikr nag moom nga xam ne da koo dëkkee saa su nekk moom moo ëpp yàlla jaamu yàlla jamono bépp jaano bépp boo ko doon dund di xalam borom bi li ñu di al sëñ Tuubaa nee loolu mu ko doole nga gis ne boo jàngatee digganteem ak sëñ Tuubaa euh, da ngay gis ne yii sëñ bi wax ci moom ci nit yàlla yi ni ñuy doxee te mooy dëddoo adduna dëddu waaye naka noonu euh, nango jaamu yàlla subhanahu wa taala diko tuddu sa su nek ñettel moy lan fikra tamay xalat borom bi di xalam sa su nek ñett yoy bo jangate du suñu doon da ngay gis na ko dund bam bam jeex tak ci sa su euh ci fikru wala bok ci zikru sëñ tubaa sëñ dóor bi wax sëñ tubaa da ko xone lillahi ghadurtuhu zurtuhu laa arabi lay islaysa ziinatu hindim bi xawaajaati yàlla képp yàlla képp moo ma indi ci sëñ Tuubaa du leneen yàllay kese laa xayrahu arabi sama itte du ku dul yàlla yàllay kese bi fenn ndax taarub adduna taxumaa jóg alu tasaw bi ñu tudd al ñu tudd hind ak laylaa ak salma ak loobu naa adduna la ñuy wax waaye du ay jigéen la wax adduna lañ jubla wax isla zinu di hindim bi xawaajaati te loolu sëñ bi wax ne wa fikru zuhaadi fi fi sanaa'i fi fanaa'i duniyaahumu wa qillatu lwafaa'i li taalibiha tujibu zdiyaada nashaatihim wa zuhdihim rashaada nee na tudd gi nit yàlla yi dëdd gu ñu dëddu adduna wan gannaaw seen adduna loola daf leen di dolli ak cawarte ci seen borom subhanahu sëñ Dóoru moo tax bi mu ñu sëñ Tuubaa maanaam cawarteeg bëgg a àgg ci boromam mooy li ko indi ci sëñ bu dee ci wàllu euh, tudd yàlla sëñ bi day wax ne may may mooy xalam yàlla fikratul ibaadi fikratul ibaadi fii jamili ثوابه جل مع التمثيل مع التفضيل تزيد رغبة لهم فيه مع نشاطهم عليه لازم ورعا nee na xalam gi nit yàlla yi di xam seen borom subhanahu wa taala ci yool bu màgg bi mu leen di defal li ñu amee ci seen borom ñu di ko xalaat xam ne lépp lu ñu am yàlla la nee na loola jamono bu nekk aarif billaahi bi ki xam yàlla dëgg-dëgg daf koy dolli ak cawarte ci borom subhanahu waxtu bu nekk muy gën di xeeñtu boromam moo tax sëñ daru wax ne wa himmati shukru rabbi laa sharika lahu jalla lahu al arduuna kas samawaati li ma saa borom defal ma di ko gendiku xam may yi ma defal loola du sama njàmbaar du lenn ci man damaa xam ne tedd ngay saa borom képp tax ma doon ko defal tedd nga ma tax mu ne ko waaye du lenn loo xam ne jàpp naa ne jëf joo xam ne maa ko def ba tax mu defal ma ko dégg nga mu dellu wax ne euh diggante xalam gi nit bi jam bi mu bi lay di xalam xéewali borom bi nak ak may yi ko yàlla defal neena na loola day doli jam bi ciofé sop borom subhanahu wa taala ta ciofel martaba mu kawe la ci ahlu tasawuf moy sop yàlla bo xasee sop yàlla dara dara dutu la saf lulul yàlla bés wax nañ ne sëñ Dóor wax na am na yàlla joxo na ko tout tànk loo xam ne xam nga léeg-léeg nit am njaboot goo xam ne faaw da ci am koo xam ne suñ borom da koy nattoo mooy dama ak cofeel ci moom sëñ Dóor nattoo ko ku mel borom nattoo ko ku mel noonu muy tout tànk mu bëgg ko la nga xam ne wax nañ ne mag ñi wax nañ ne su ma sànni di julli sax day bàyyi ba mu sëgg mu ñu toog ci mbagg yi bu sëggee taxaw ak moom téye ko noonu buy sugóor wàccee ko ba ni mu sëlmal bés suñ borom jël ndaw lool yi waa kër gi xam giñ xam cofeel gi mu amoon ci xale boobu ñu di ko ñëw di ko mastawu mu ne leen yéen de xamu leen su ma xamoon ne saa borom da koo soxla ma yët ko ko bala mu koo jël si loolu kon mooy nit yàlla yi fa ñu àgg ci seen borom mooy dara du dox seen ci seen xol lu dul yàlla dara mënut a dox gàllankoor seen digal seen borom subhanahu wa taala loolu mooy tax mu muy muy wax ne wa himmati shukru rabbi la sharika lahu jalla lahu al arduna ka samawat li annahu jalla yu'tini al muna karaman xéewal yi may jox teraanga ma tax mooy baaxuk saabura moo tax ma ko waaye du du njàmbaar gu ma def wala lenn lenn ko jàll yoxtu mën a karaman waaye sutural ay ba fii kulla saati nee na sama ayib saa su nekk mi ngi koy suturaal nga gis na loori daa jëfandikoo ni nit yàlla yi di def mooy duñ gis seen mbaax duñ gis seen martaba duñ gis seen daraja mooy waxtu bu nekk jàpp nañ ñooy ñi gën a suufe ci nit ñi ñooy ñi gën a suufe ci nit ñi moo xasanaatu abraar sayyiatul muqarrabin ñi gën a jege yàlla ñu ñi baax ñi seenu seen mbaax fañ yem loola bu ca ki gën a jege yàlla ki gën a ragal yàlla bu ci yemee loola ñaaw téef la ci moom moo tax waxtu ne jàpp na ci ay sayyiaat lañ nekk kon waxtu wi mi ngi jot nu tënk li sëñ bi di wax ci masaalikul jinaan ne xalam gi nitu yàlla ki di xalam di xalaat boroomam ci xéewal yi ko yàlla defal mu di ko delloo boroomam may yi ko yàlla defal mu ngi xam ne du ca dara lépp boroomama coobaree boroom ak lu neex sun boroom la loola day gën a dolli jaam bi bëgg yàlla subhaanahu wa taala mooy li mu wax ne wa fikratul aarifi في الآلاء ونعماء فاطر السماء تزيده حب محبة للحق سبحانه ربا لكل خلق لولو بوكي نيكو سيني دورو دوندي ماي بيمي جي سيني توبا دافكو خمال مان نغيرمال يالا ما ييكتي اتيتك اليوم ضيفا لولا تخجب اطلبن رضا رب البرايا الذي يعلي المقامات نغيرمال يالا ما تخجب ndax yalla kat ku am martaba ku am daraja mo la ko jox du keneen xiraaya siqati ridwaanu abadan bi xeyri suxtin wa tawbiixin wa afaati li nga may bernde gan man gan ca la ko neex mooy na doon ngërëmal yàlla waaye ngërëm li dama koy taamu bi xeyri suxtin wa tawbiixin wa afaati su ma ko xasee am saa borom duutuma mere duutu am benn sànj sama diggante ak morom duutu am benn gàkk mbaa seen sikk ngërëm loola la sàkku ceew ndax yaay buntu ngërëmal suñu borom ci kaw suuf loola sëñ bi defal ko ko nga xamne ci fiñuy wàcce suñu kàddu moy li sëñ Cheikh doon wax legi te ngërëm yoy sëñ Tuubaa sédé ko ci mom ba tay waxtu wu nekk muy bind jëme ci mom wala muy yónnee ay ndaw boole ay sédé ci mom ni ko waxe sëñ Omar legi ci lettre am bobu balligh salami ila ila jarik alladhi fi'luhu kasmihi nuyoo ma sa dëkkandoo ji nga xamne ne jëpp da mel na tur wi muy alxasan lo rafet loola sëñ bi seere na ko ba tàyyi mag ñi wax nañ ne sëñ bi daana xewal ni fonke woon julli saa su waxtu julli jotee ku agsi ci mag ñi sëñ tubaa geestu buy sëñ dawru mu kàbbar bu dul moom mu toog xaar bu sëñ dawru ñëwee mu kàbbar ba mujj mag ñi di wax ne ñun de bu sëñ dawru sëñ ñëw duñ julli bi lool ne toq ci nopp sëriñ bi dana leen gees ni leen Mor Assane de dara taxul ma di ko xaar lu dul ne saa borom daa dogal sàppe su mu bokk ku ca bokk sa yaram araam na sa war a loolu rekk tax ma di ko xaar daal di kàbbar kon yàgg na ko seede ci moom bisit sëñ bi nee sëñ bi na ko doxal ñu julli mu di diital mag na ko doxal ëppoonu xam-xam da nga noo a ragal yàlla ëppoonu xam-xam da gën a ragal yàlla kon taqwa mooy ragal yàlla ci la nit ki di rawee lépp lu mën a doon sëñ Omar mii ñu doon tudd léegi di wëllëreem bi leen sëñ di boole am na yoon woo xam ne njaareem la fekk la sax am na yoon woo xam ne sëñ Daaru sëñ Omar moo tàggu sëñ Daaru ne day siyaar yi sëñ Tuubaa sëñ Daaru ne ko xaaral ma yóbbante la ne ko boo demee nee ko moo raasan nee na moom de su doon bëkk néeg ca bëkk néeg àjjana képp ku bokk ak moom sant mi bu ñëwee ëllëg yamal xayaam ma ubbil ko àjjana mu dugg duma duma ko seet sax loolu mooy mooy mooy bëgg sëñ bi ba lépp luy sëñ bi nga jàppe ko muy sëriñ bi noonu la sëñ Daaru Asan jàppe woon sëñ Tuubaa soo demee nee ko su su ma yor dama doon bëkk néegu aljanna képp ku bokk ak moom sant wi bu ñëwee ma ubbil ko ma dugg sëñ war na ji bëri bëgg dem ne ko téema la koo karmata mu ne ko bàyyi ko danaa ko jàpp yoonu ñaareel demee di siyaare ji sëñ Daaru Muxti jógee Daaru Njaay di siyaare yi yàlla dogal sëñ Omar njëkk agsi boobu mi ngi ànd sëñ Asan Jóob taawam bi mu tudd sëñ Daaru Asan bi amar nuyo, nuyoo dana ko ana Morasan mu ne ko andu nit mun ko doxal so andut sax Morasan du ma la jox loxo señ amar wagne ko yebal señ Assane Diop domam ji far bi mu ko yam ci señ Doro San mu ko señ amar neena nga agsi señ bi neena kat bo su du ko jox loxo ñom ñaar ñaar aksi bi ñu suku ci kanam señ tuba señ bi neena waaw ñaar dinaa bëgg ngeen bol seen bop ndax seen ñaari bunti kër ñoo jakarlo kon foofu la boole mën a yem suñu amor moomee nag di koo xam ne ku ñàkk ki la daa seede yu bari ci sëñ Daaru Asan keroog bi ku suñ ci waxee ne ko demal gungeel ma Mor Asan te boo demee nga jàll njàmbur waaye lu yàgg-yàgg néeg boppam ba mu daan fanaan bu ca dugg ndax soo ci duggee da ko fekk ndax yéen a bokk mbir keroog ba suñ amar yendoo ba jant so muy dellu siwaat baat yi la seede ci sëñ Daaru Asan na jëm ba ngay joj xam naa ci moom yii mooy du delloo ab laaj du diine du boobu xam-xam du diine du diine du boobu alal mooy loo ko laaj ci xam-xam mu tontu la ko waaye loo ko laaj ci alal mu jox la ko mag ñi wax nañ ne tabeek sëñ Daaru Xasan kenn mu musta xam nu mu toll waxtu wax ne daana yónnee ay hadaaya moo xam Daaru Salaam la nekk wala Daaru Biram Bóode la nekk mbaa Tuubaa Njaay gi mujj wàcce fa la nekk mag ñi yóbbu ay hadiya bu ñuy dem njaaree mbaa fu sëñ bi nekk ci réew mi yaale la ñuy def ñiy dem di yóbbu ay hadiya ñi nga daje ñu jóge Sëñ Tuubaa yóbbuwoon ay hadiya ba wàññeeku ñu ñuy rombante ci yoon wi ba dañ daan sax ay ganaar dañ daan rabb ay sendal di ko ruy ba mu fees dell di ko yanu di aw awlonte ba ci Sëñ Tuubaa daanañ defar ay ay ay ay ay maanaam xeeti muraake yoo xam ne nii ay seel lañ daan wal di ko boole moom maam Fatick yi rab bu yaakaar naa ñu jóge yëgul bokk na ci ñi doon defar loola daan ko yës Sëñ Tuubaa kon loolu da ci ngay déggee mooy mooy tabuk sëñ Daaru tabam waaye tabam ci ci darajaam xam-xamam gis naa lettre boo xam ne sëñ Omar la ko bind Daaru Salaam la ko bindee sëñ Daaru bind ci uturam al katabahu al Xasan Ndiaye fii Daari Salaam fekk sëñ Omar dafa la lu jëm ci wàllu xam-xamu miraas kon sëñ Omar ku ñàkk kiñaan la moo tax moo mu seede ci moom ne ku koo xam ne du delloo ab laaj du bopp alal loo ko laaj ci alal mu jox la ko waaye loo ko laaj ci diine yi mu tontu la ko daan du tudd nit fu mu lol fi la mbax yam loolu kérok loolu la suñu Omar sédé ci mom señ Mbàkke bu mii bi ko señ Tuubaa joxe ndigal mu koy taxaw fi ci barab yi bi ñëwee bu tim ko dafa wax ne jëmba nga ni joo xam ni mu mel da caa yubalé njabotam gépp dal di kabar kon yëmut ci défar bopam rek waaye lu ko ñiko yalla bolal ni señ Basiru doon wax né kathirul atbaa'il muridina mbolo mi li ñi bari bari ñëpp dafa leen défar ba ñom ñëpp ku ci nek manam jaar ci aw yoon jup kocc bay défaré mu defar lu toll ci ñaar fukk ak nangam mbaa lu ko ëpp yoo xam ne ni ku ne dalaa tafal mbooloo lim def li Sëñ Tuubaa defan ci mu def ko ci yow ngay def nga def ko def ci ñeneen kon mujjewul puso bu mu réer kon fi ñuy daane la mooy bisam bii nu dëgmal nu bàyyi ko xel ci saa su nekk nga xam ne ren jii mooy téeméeri atam bi mu fi bàyyi ko ak léegi muy tubaab tudde ab centenaire téeméeri at nag ci nitu yàlla ku fi bàyyi ko njaboot gam bàyyi gannaaw war naa am leneen yu bari yu defaat ci ñoom ci seenu doxin ci seen pas-pas ci seen pëste ci seenu gëm yàlla ci seenu dogu ci seenu bëgg sëñ tubaa waaye ci nangoo lëggéeyal sëñ Daaru Xasan loolu ku ne war na ko bàyyi xel ci noonu ndax loolu yi mu jëre ci sëñ bi te sëñ bi waxtu wu nekk mu bind ko di ko wax di ko yóbbante aw mag loola ku ci yàlla boole ku ne war ngaa sant yàlla te fas yéene góorgóorlu ba foo nekk ak foo mën a doon rek buñ nee kii ci njaboot suñ doo seen la bokk donte taalibe nga bu xeeb ba mel na man waruñu la waruñoo yëpp sëñ Dóoru maa yem Dóoru Njaay di ko jaare ceew loolu ku nekk war na ko jàngat ci noonu ku ne war na ko xam ndax loolee ko suñ Tuubaa loola doy na sëkk ci lettre boobu mu yónni woon ci xam le ne ba mu ko santee la mu koy sant ba muy ndigal sëñ Dóoru daa woo sëñ Masamba bi ne ko kaay ma ma jàng lettre bi taalibe bi yëpp nañ agsi muy fere yi ma jàngalee lettre bi sëñ Tuubaa yónnee ñëpp déggandoo kenn bañ ko nettali morom ja mu ne leen sëñ bi ba ma joxee ndigal ba noppi dafa wax ne Mor Assane day am na loo xam ne ñu bari ñëwoon nañ jamono di ko wut mu jafe leen yow suñu borom defal la ko mooy am nga ngërëmal yàlla sa borom am nga ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ngërëmal lislaam am ngërëmal alxuraan am ngërëmal sa ñaari waajur am sama ngërëm waaye maa ngi lay seedeel ne ku la liggéey la toll ne liy deecee yaram aram na sawara sëñ maagee mi ko doon nettali nee na keroog fu waaye xam dafa bay boppam nee dangay ngay seen ab taaliba taru garab ba ca njobatan la mu jiital boobu daana ci su teg njëm di wéy ndax jar na ko loola nag ku ko sa sa kilifa faggul muy sëñ Darou Assane war ngaa mel noo xam ne ku la gis ku nekk la sëñ waa doon wax ne musuma gàcceel sama taalibe sama taalibe bu ma gàcceel kon njabooru sëñ Darou Assane ak koo mën a doon ngay ab taalibeem ndax li ko suñu borom defal mooy bokki boppam ñoo ko topp bokki bopam mo xam nga sant njaay ak ma sant neena ci suñu suñ ñep ñu bokk ci menn maamu ñu daan loolu tawfiq ju ko sun borom defal kon ku ci laal ku nek ku ne war nga mel melokan wo xamne fuñ la gisee nga ne fa la bokk rek ñu ne ëskay loolu kon ab yóbbante rek ci ñima ko wara wax ci ñima ko wara wax no ngi tub di jéggulu di jéggul kaddu ak kilifa yu tew xamna wax ji señ Cheikh job doon wax mom xawna yo xal ba daanaka lañu waron wax sépp mënu ko waye yalla sun borom defal dégg ak top tañ fekk bis bi nu dëgmal te suñu borom defal ay ay ay tawféex ak ndam yàggal Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak Cheikh Abdoul Khadir ak mboolem kilifa diine yëpp ñu yàgg seen gannaaw yàgg jëf ndigali suñu borom ak ndigali sëriñ bi suñu borom nangul na ko dañu feexu yéeg alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu laar jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp